mën naa gaaw Pape Doudou euh, ñu euh, recevoir ko euh, sunu xarit bi jógee Kaarang di Chamet Tidiane si ñoom itam ñu ngi wàcc inauguration wu grande mosquée bu Kaarang ku ne xam na ni Kaarang mu ngi nekk ci diggante Sénégal ak Gambie Bessel nee na ma kenn du wax Kaarang mais Kaarang voilà donc c'est toujours bien di préciser noo ne ñuy woowee dëkk yooyu c'est vrai que miin nga fa ndax horaire bi journée yu am solo la amal à partir du 11 mai 2018 euh, euh, sang bi ñu ngi lay nuyu euh, di la ziar si Malick gërëm la ci teewaay bi tey ñu jëm nag ci inauguration grande mosquée bu Karang d'abord dañ lay bàyyi nga nuyoog suñu xarit ci ñuy seetaan. aouzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad wa subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim mm-hmm. asalaamualeykum jamian wa rahmatullahi taala wa barakaatu mm-hmm. ah ñu ngi sant yàlla bu baax mm-hmm. di julli di sëlmal ci seydil awalina wal di seyduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di ndokkeel sunu sëriñ taala anhu di kañ di bàkk di bégee di ndamu di puukarewoo saa su ne mawlaana wa wasilatina ila baay barahama abdullah mm-hmm. ñi ngi nuyu waa sénégal ñi ngi nuyu waa adduna bi yëpp a travers tfm mm-hmm. di nuyu waa plateau yeewu leen mm-hmm. di ci jiital oustaz Pape Anne ak yow Cheikh Pape Diallo Pape Cheikh Diallo ak mbokk yu tedd yi nga xam ne fekk nañ leen fi eh, di leen wax ni waa nurul basar ñoo leen seet si tey di benn association religieuse boo xam ni ñu ngi yeewoo ci kër Maulana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass amal fële ca benn ubbite juma boo xam ni le 11 mai lañ ko nayoo def incha allahu rabbi ci teewaayu imaamu xadara bi di Maulana Cheikh na Ahmed Tidiane Cissé euh, ak ay kilifa yu bëri yoo xam ne danañ jógee Gambie ak si sous région bi. waaye ci teewaayu sëtu Seydina Cheikh radiallahu taala anhu di Chérif Hamza Tidiane tamit euh, di profiter ci occasion bi ci plateau bi di o képp ku naan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci yiw bu rëy boobu yiw bu màgg boobu nga xam ni kenn ci membre Nurul Basar moo ko sos di Cheikh Abdourahman Ndaw Al euh, sos ko fa gannaaw loolu mi ngi tabax foofu benn kër bu yaatu tuddee ko résidence Maulana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass gannaaw gi mu samp fa juma jumaa jooju mooy grande mosquée mm, Karang euh, di loo xam ni dëgg-dëgg ni mu mel ci taar ci mucc ayib yàlla moo ko jagleel ci concours jaamu yàlla yu bëri yoo xam ni fekk si nañ ko ci lu ci mel ni association bi waaye lépp nag ci loxoom la di ñaan yàlla yàlla defal ko tawféex ak taysiir euh, topp na njàngaley Mawlana Cheikh al Islam Haaj Ibrahima Niass moo waxoon képp koo xam ni euh, muxaddam nga ci yoon bi euh, na nga fexe ba fi nga nekk nga samp fa zawiya wala jumaa joo xam ni cinq prières yëpp yaa koy jiite wa ilaa nga ut imam boo xam ni moo koy jiite ñu fay def wasifa di fa jàng alquran jaamu yàlla yi di ñëw di fa rawale seen pas-pas kon topp na ci tànk yooyu di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawféex ak taysiir ba ubbite bi incha allahu rabbi ñu door ko ci bismillahi rahmaani rahim pare ko ci alhamdulilahi rabbil alamin gan yi képp ku ñëw dem ànd ak mboolem yiw ak faj ak aajo ak ubbeeku zaahir ak baatin kon lii moo doonoon kàddu nuyoo bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. donc le 11 mai ci ngeen di euh, inauguré grande mosquée bu euh, Karang lu ko jiitu euh, le 10 déjà di ngeen xarafal xale yu bëri. di journée de circoncision. Mm. loolu itam di lu am solo pour ñi nga xam ne ni ñoo dëkkee ci dëkk boobu waaw xam nga jullit moom lii waree fam mm-hmm. mooy mu jëfee kàddu borom bi subhaanahu wa taala jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. euh, borom bi subhaanahu wa taala dafa ne mindaafoon yëpp samay njaboot la hmm. ki gën ci ñoom mooy ki ëpp ci ñoom njëriñ hmm. xayru naas an faxaxum li naas donc nga gis ni njëriñ mooy lan nga fekk koo xam ni loxoom jotul digg ginnaawam nga dimbale ko te yàlla tax njëriñ mooy lan nga fekk koo xam ni euh, wér gu yaram da koo dab mënalul boppam dara nga soutenir ko taxawu ko ci sa doole ci sa alal ci sa pexe ba mu retrouver sa santé te yàlla rekk tax mm-hmm. ci anam yooyu ci la ñu ci la ñuy yëngatu ñun Nuurul Basar te Cheikh Abdourahmane Dawal Karim mooy njiit bi fële ca Kaarang mm-hmm. bi mooy neuvième édition chaque fois balaa gàmmu gi di ñëw dañuy def journée de consultation gratuite ñu gis ni zone boobu population bi taxul seen loxo jot seen digg ginnaaw. Mm-hmm. mu leen di venir en appoint. te dëkku Carrefour la en fait. waaw dëkku Carrefour la ñii Gambie ñii Guinée. ñii Sénégal dëkku Carrefour la. donc comme seen loxo jotul seen digg ginnaaw da leen di venir en appoint. Mm-hmm. da leen di assister. ci seen wallu santé. Mm-hmm. chaque fois daf fay indi ay spécialistes daaw daanaka 36 médecins lañ fa yóbbu woon. ay spécialités yu wute. pour saytu wérgu yaramu population bi. Euh, may leen garab. ñi nga xam ni tamit dëgg-dëgg dañ leen defal ay analyse wala ay diagnostic yoo xam ni dafa jéggi dayoo moom ak ñi nga xam ni ñoo koy jàppale ñoo ciy dugal seen loxo pour toppatoo seen wér-gu-yaram mm-hmm. euh, comme population bi demeewul noonu wàllu xaraf bi dañ ciy am problème population bi ñëw wax ko ko ren mu déplacé ay chirurgien ay équipe boo xam ni dëgg-dëgg ñi ngi gërëm de passage kii di Seyda Rokhaya bi nga xam ni moo jiite euh, association Mam Asta Dianka mm-hmm. mu yóbbu fa équipe médicale bu mucc ayib boo xam ni ren incha allahu rabbi danañ xarafal téeméeri gone te assister leen ba ñu wér ñu bàyyi leen ñu dellu seen njaboot loolu mooy le 10 incha allahu rabbi mhm. le 11 mhm. nag ci la ñu amal ubbite jumaa ji mhm. à partir de 10 heures ci suba ci suba euh, kilifa yëpp danañ ñëw comme ni ma ko préciser sànq imaamu xadara bi di Cheikh Ahmed Tidiane ibn Seydi Alioune Cissé moo ko nar jiite ak njabootu Mawlana Cheikh al Islam Haj Ibrahima Niass gi yëpp ak kilifa diine yi nga xam ni ñoo ŋànk Sénégal ñoom ñëpp invité nañ leen ñu ngi profiter de l'occasion pour yeesalaat invitation boobu ñoom ñëpp ñu ñëw fekkee ko parce que ndamu l'islam la euh, ndamu Sénégal la ndamu jeunesse l'islam la parce que ay ndaw yoo xam ne amaguñu ñeent fukki at ñoo ko mm. jëmmal mm. à travers Cheikh Abdourahmane Ndaw Al mm-hmm. kon kilifa bu ñëw rek yaa ngi tendre la mais cette jeunesse bi nga xam ni dëgg-dëgg ëllëg ñooy mujjee mbir mi mm-hmm. euh, di wax ni c'est pas la première fois et ñi ngi ñaan yàlla ci barke mag ñi yàlla suturaal ñu ba jéego yi nga xam ni mag ñi loolu lañ xàlloon hmm. ñu jéem ci teg sunu tànk te bu boobaa ndamal Sénégal lay doon mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu euh, baax Chame Tidiane euh, Sy euh, programme baa ngoog foofee ca Kaarang ñu ngi ci wo mbokk yëpp hmm. ñi dëkkee Gambie Sénégal it ku fi ne bu dee mën nga caa dem ndax am na ngëneel inauguration grande mosquée bu Kaarang ci frontière ak Sénégal ak Gambie le 11 mai la ñu koy amal ci suba gi et puis veille xamante ni journée de circoncision la ñu ko tuddee. Mm-hmm. Euh, le 10 lay tombeel euh, euh, le nag ci la def inauguration bi jërëjëf si nga nuyul ñu suñu sang yi nekk ci dëkk boobu oustaz. barkallah jërëjëf sama tijaan yi xam nga ñoom dañuy ay jàmbaar alaj pap mm-hmm. association boobu nekk association boo xam ne li mu ko waxee ay ndaw ñu ci gën a bari. Mm-hmm. Nuurul Bachar. Nuurul Bachar nga xam ne lee mooy leeru mindee fii. nga xam ne ku ci bokk rek leer rek ngay gis. di mu xaddam ci kër Cheikh Islam radiyallahu alxuraan mais di jàmbaar moom itam mm-hmm. Mm-hmm. di ci daj ay coono yoo xam ne coono yu jégg dayo lay doon mm-hmm. rawatina dëkk ba mu cosaanoo di kaarang euh, ñi nekk am na ñoo xam ne cosaanoo woonu kaarang mais ci association ba lañ bokk ñoom itam ñu ngi ci daj ay coono ngir jumaa ja rafet ngir dëkk ba donc mission bi day gën a yaatu ñoom seen mission day a yaatu dinañu dugal diine Gambie euh, yaatal ko Sénégal dugal ko Guinée a dëkk yi nekk euh, ci frontière bi loolu moo ci am solo en tout cas nañu si Euh, bu ñu amoon temps nag daañu gën a waxtaan ak yow waaye comme euh, temps bi noonu la demee tënk nga te lépp leer na defe naa ci bopp téléspectateur yi ñu ngi lay gërëm xam naa sa mbokk taalibe yi bëgg na ndax moom euh, boo ko bëggee boo ko bëggee nax rek ah. da koy jaarale ci Cheikh al Islam moom fa koy naxee macha <laughs> allah maaw mi ngi naan ma tegal téléphone bi fekk moom moo ni ma naa photo Cheikh wallaahi koy dugal ci gëm-gëm waaw boo demee nga ziaral ñu Cheikh Abdourahmane Ndaw bu baax ñuy ñaan yàlla rek def si xéewal mais di ziar bëgg bàyyi képp caam ndax moom euh, bëri na ay événement ci pays bi yoo xam ne bokk na ci ñi koy tasaare donc ñu ngi ñaan yàlla rek événement bi yàlla jox leen ci seen mboolem caam jërëjëf si jërëjëf jërëjëf kontaan nañu ñu